nga daal di def sa jampot bu ne muut def sa njaxas daal di ñëw toog. <laughs> waaw dama ko simple rek. Mhm. def ko à la murit. Mhm. waaw loolu laa def. Euh, tey lan ngay wax fans yi ci màggal gi nga xam ne li ñu jublu nii. Euh, fans yi du def lu dul di leen bëggee di leen ziar di leen ñaanal ci màggal gi di leen ñaanal aussi ñu koy fekke ay ati at ba ñu mën di ñëw parce que ñun tamit amuñu ñunu bëgg fans yi rek lañu am. dafa neex nga ñëw fii. gisuñu la bëgg di wax ak yow di la jël ay photo ak ay vidéo ça fait plaisir mhm. su la kan mooy alima lan nga may wax alima est ce que dinaa mën wax si alima lu bëri mhm. alima benn femme la mhm. une femme mariée nekk ci kër di sëy ak ay wujjam bëgg jàmm bëgg salaam mais fiir aussi ragal tuuti aussi tapet <laughs> wa tuuti <laughs> parce que dafa am wujj bu féroce wujj boo xamante ni li muy def alima xamul loolu mhm. alima jàmm la xam ak salaam mhm. muy nit koo xamante ni jàng na di liggéey yore ay diplome di voyage di ñëw bëgg ménage boo xamante ni dafa stable mhm. amu ko parce que wujj bi mu am dafa dangereuse kooku mooy alima ju soxna ba toor yóbbu seen fit wax ko te dee <laughs> waaw na suñu fit seen normal mu yóbbu sama fit parce que ku la bëgg rey bëgg rey sa doom boo ko gisee di nga daw waaw d'accord euh, Ndeya tey lan moo ko inspiré ba mu dugg ci li nga xam ne moo di cinéma sénégalaise. no cinéma bi nag dama ci dugal profil la rek. Mhm. dama xam ak waa waa Pikine laa xamanteel. Mhm. ñu soxla profilu Ndeya parce que avant Ndeya di dugg ci animatrice euh, ci euh, actrice. Mhm. mannequin la woon. top modèle. d'accord léegi profil bi foofu lañ koy gisee mu intéressé leen ñu woo ma ma dem def casting réussir ko ñu jël ma. nga daal di joué rôle aliment. Mhm, rôle aliment euh, ñu gis ne euh, bi nga ko joué euh, sénégalais yu bëri ñii apprécié na ñii apprécié wu na parce que nekk nga ci koo xam ne bàyyi nga sa loxo trop daal di tooy sa wujju di la mal mu ne nu mu ko neexee nan nga ko dundee ak sa entourage ak sa famille. non méttiwul parce que rôle la boo jàppee ni ko rôle la rek du metti des sa famille dinañ.

duma daw. comme alima ni dawé dawee dayaa du dawee mm-hmm. day defante. day fayu. day dem ba <laughs> gis deuxième saison bi gis nañu changement tout rek ci aliment ah, té gis nañu ne eh, doomu ji moko xaw may fit ba muy ak ah, ki nga xamné bi ko sonal ah, sa par rapport première saison yépp euh que avant amna avancement bu bari bari parce que Alima première saison ak Alima deuxième saison am na différence parce que Alima deuxième saison am na fant si biir am na biige si biir ñu def seen coalition pour xeex soxna ba la woon woon ni na la woon woon ni na fii ku fi yëngal ñu yëngal <laughs> loolu la ñu wax mhm. trio bi daal loolu la la indi la won won ni na mhm. soxna bu defee lañuy def mhm. duñ ko may dara waaw <laughs> tey ñu gis ne ñëw nga bésu magal ñëw fi nga xamantene moy mooy kër Baye Karim bo ñu mënee ñëwaatal sa diggante ak mom Euh, sama digganteeg moom nag peut-être mën naa ne dafa du du lu bari bari mais Baye Karima dama ko bëgg depuis ma gën a nekk xale mën naa am sax loo xam ne mën naa ko wax mën naa ko bañ a wax mooy dama mën naa ni sax Baye Karim est que géntu ma ko xaw ma nu ma dikkee man dama xëy rek un jour gis ko télé fekk way bi ko titi way jour boobu la njëkk a génn ma gis photom ci télé bi ma ne sama yaay man kii démb gént naa ko genre expliqué mu ni ma gént ma ne ko waa may dem di dem di dem ba xamanteeg nit ma naan ko man kii dama ko bëgg Baye Karim dama ko bëgg affaire yooyu noonu ba daaw mu boole ma ak ay ak nit sóoru faal ma fexe ba ñëw fi ba gisanteeg moom Fatou Mbaye mi ngi nii toog du ma bàyyi ma fen bu ma ko gis damay jooy bien vrai que man du ma murit taalibe sëñ Babacar Si la mais dama ko gis dama jooy jooy jooy jooy mais xaw ma lan la bëgg bi ma ko bëgg daal dafa naturel peut-être moom moo ma xëcc si wetam d'accord pour fan si yi lay seetaan ndeyaa neex leen ñu fonk ko bëgg ko lool te xamuñu nag situation bi nga xam ne moom la ndeyaa nekkee maanaam célibataire ou marié tey lan nga leen di wax

du grand C hmm. petit C la parce que amna na fi nek wa amna na fi nek moo tax mu nekk petit C hmm. ah dama leen wax ñu ñu yem si soppe rek fans hmm. rek waaw yokku ñaani waaw <laughs> vie bi nga doon mënee avant ngay nek feeñ ci écran vie bi nga done dund ak say xarit say famille est-ce que andaya non lay continuer di dund ak famille mak ak ay xaritam ak entourage ba tay bien sûr dara changé wul ñi ma doon àndal daaw lay andal ren sama famille ñima ma ñoom laa nekkal ba léegi ni may dégganteeg ñoom ni may gisanteeg ñoom dara changé wul vraiment. lan mooy projet yi. projet yi mooy gën góor góorgóorlu gën a percer ci milieu bi gën a liggéey nekk actrice boo xamante ni mën nañ ko dégg fu nekk mu bañ a yem fii nekk actrice boo xamante ni dafay international am ay projet aussi liggéey waaw dem fu sori rek bañ a fii. bëgg nañ affaire dem ba ci kanam mu gën nekk high level. ñu gis bokkoon nag sa famille rawatina sa waajur bu jigéen eh, ñu jékki-jékki jamono ji passé yàggul dara mu daal di génn àdduna a eh, tey eh, lan la def ci yow ban vidde la def ci yow. je ne pense pas que ni dinaa si mën a wax. parce que masawu baax. parce que neexoon na tey nga egg fenn fii gis sa yaay. massa massa ñu ngi lay massa bu baax massa massa massa massa am na comme ñu ngi tudd. waaw moom nag directeur bi. ñu ngi woote ci massa massa. massa massa.